Abdourahmane Nabil ñu koy jaajafal bu baax a baax mu yokk baat bi nag ah. <laughs> di la ziar di la ñaanal jàmm. ñu ngi ziar waaw wax laaj bu njëkk bi rek mooy. Uh, mhm. loolu moom kumpa doon ci ñëpp. dëgg la dañoo gis ren màggal gi sëñ Modou Kara demul Touba nekk Ndakaaru. waaw màggal gi yaakaar naa ne. lan moo a loolu lu tax demul Touba. waaw ku ku yàgg suivre sëñ bi defe naa du ren la ko tàmbale. Hmm. mi ngi bëgg def defe naa léegi juróom benn at daanaka. moom muy màggal di génn Touba li ko waral loolu lu yomb comprendre la ndax sëñ bi moom day boroom vision te it moom dafa gis ni sëriñ Touba comme yërmande la te yërmande jooju des koo yaatal ndax bu ñu xoolee contexte màggal gi bi muy njalbeen di tàmbale mhm. yaakaar naa ni boroom màggal gi bi muy woote màggal gi dafa ne bu màggal ji jotee mhm. fu nekk rek na ngeen ma santale yàlla mhm. waaye bi jamono doxee ba sëriñ Fallou gis ni maanaam Touba laajoon na nit ñi ñëw. pour maanaam dëkkaale ak ñoom si la woote contexte màggalu Touba. mais léegi gis nañ ni dëkk bi léegi màgg na te itam sëriñ bi moom fi mu dëkk ci Touba. boo xoolee bu fa màggalee bokk na ci kër yi gën a dajale nit. ak jamono ji ñu nekk ak nawet geeg maanaam euh, foofu bu fa nekkee ni muy ni dëkk bi di demee. waaw moom comme yërmande la te jamono ju nekk day xool loo xamante ne euh, day yomb ci jaam yi. ndax ñun bu ñu màggalee foofu yenn saa yi maa ngi fàttaliku benn màggal boo xamante ne am na ci benn kuréel boo xamante ne ñoom mooy ñi ñi euh, waa kër Baay Matt yi. Mhm. nga xamante ne dañuy def kuréel gu bëri di jàll. ñun bu ñu fa màggalaan da daan indi ay jafe-jafe pour ñoom ñu jàll. Mhm. ndax ñun dañ daan fees ba jël tali ba daan daanaka yëpp. Mhm. yaakaar naa xam ngeen si sëñ bi dëkkee. léegi nag contexte boobu tax lu ci bëri sëñ bi gis ni comme ku tedd ki moom yërmande la. kon day baax yërmande jooju ñu wasaare ko fépp. loolu rek moo indi moo génnee màggal gi. di ko def féppu ci région yi def nañ ko cees def nañ ko Louga euh, def ko ren Dakar. Mm-hmm. waaw am na ren peut-être contexte bi ngay indi. Mm-hmm. mën na doon contexte bu ñu mën a nangu. contexte mm-hmm. des inondations. accessibilité bi. war a dajale mbooloo day compliqué. mais lii lu yàgg la. peut-être ren mooy Dakar. mais lu yàgg la quoi depuis des années bu ko def comme wax nga Thiès wax nga Louga. wax nga mais loolu ci woote boo xam ne dañ na woote ne ñëw leen santale ma. waaw moom mu beru ci wàllam di ko def. di waroon a dem am ñi des ci moom. déedéet ku tedd ki dafa newoon. Hmm. maanaam bu màggal gi jotatee. Hmm. fu waay nekk na ma fa santale yàlla. maanaam li indi ñuy màggalee Touba loolu Serigne Fallou ko indi. Hmm. te loolu li taxoon mu def ko bëggoon dëkk bi ndax dëkk bi euh, dafa wéetoon. sëriñ bi nag moom gis ni comme jamono dox na ba dëkk bi nit ñi fi mu toll nii yaakaar naa ne Touba <laughs> fi mu toll nii dëkk ba dafa dafa dafa eh, yaatu na lool ci ñi fa dëkk. xam na tey ji bu nee kilifa. Mhm. Eh, exemplarité la ñuy wax exemplarité. waaw ah, moom kilifa la. waaw xam na waaw toll ci sëriñ Touba. sëriñ bi loolu moom waaw waaw. mais ah. moom bu dee dafa nekk exemple ba pare toog. déedéet mooy est-ce que du poussé ñeneen ñi xamul li mooy li ma la wax moom dafa bëgg yaatal yërmande ku tedd ki te xam nga ni lépp lu muy def rek moom ki fi nekkal ku tedd ki moom da ciy yëgoog moom. Mhm. te ren ba mu ci yëgoog Serigne Mountakha daf ko wax ne ko comme nam ko ko daan waxee rek yow moom loo def rek dañuy gis ni. ngir yaatal yërmande ku tedd ki la. loolu rek la ci jublu. est-ce que du am ñu ko gisee neneen. waaw ba tax ba tax tey ngeen war a génn pour expliquer ko mooy wane ni kon am na ñu amul compréhension. non yaakaar naa ni moom leeral na ko bi mu ko njëkkee def. Hmm. leeral na ko leeral di ko xanaa nit bañ a dégg rek. waaw yaatal yërmande lu baax. lu baax nga ne da koy yaatal loolu yaakaar naa ni kuy borom xel mu sell war nga ko mën a nangu. Hmm. rawatina ki nga xamante ne moo fi nekkal eh, sëriñ bi. Hmm. rafetlu ko ndax yaatal lu baax. loolu rek la ci jublu. jubluwu ci leneen. mais la particularité de Touba mooy du rek dem mais di nga dem ziare wàccoog yenn yi mais bu dee ni fii doo ko mën. waaw na dem ci bërëbu sëriñ Touba dem ci jumaa ji loolu dëgg la xam nga. man man mii bu ma eggee Touba li ma njëkk def ma dem ci jumaa ji. julli fa fajar doog a doxi sama soxla. waaw loolu lépp dëgg la. Ah. loolu lépp dëgg la waaye Serigne moom dafa fexe ba def. man tey damay wax man bi ñuy màggalee Touba. Hmm. ni ñu génnee màggal gi. concentration bi may am ci màggal gi. Mhm. daanaka du ma ko am bu ma nekkoon Touba. Mhm. xam li ko waral. ndax yenn saay xat-xat gi. Mhm. xat-xat gi dëkk bi di xat. ak yenn jafe-jafe yi ñu am ci dal yi. mais bu ko yaatalee ba nga xam ne da mën a concentré wu ren teel na nu yeew. Hmm? def euh, wàcce euh, dal boo dem jàng alxuraan jàng xasida berne yaatal am ñoo xamante ne maanaam amuñu woon wala umpoon nañ mbirum màggal dimbali nañ leen sax ñu comprendre màggal ndax daaw maa ngi fàttaliku Thiès am na goox bu ñu dal boo xamante ne maa ngi dégg koo xamante ne mi ngi wax ne man de déwén danaa màggal fii lu ko waral mooy màggal gi ñu fa màggal mu gis màggal li muy symboliser. solidarité googu biir man ji dëgg la jumaa jeeg yooyu dëgg la waaye jumaa ji mën nga ko dund fu nga ne. mais fi may waxee mooy ki xamul. jàpp ne dafa war a def ni sëñ Modou Kara te xamul li ci sëñ Modou Kara jublu mu ne man comme sëñ Modou Kara nee na def na ko ci wàllam man jëriñ laa xaaral tamit man tamit ma def ko ca Kër Massar. mais Omar bu yàggee ku ne di woote ci wàllam. Omar xam nga sëriñ bi moom dafa woo ñëpp te bu ñu xoolee màggal yi boo ko boo xoolee ca njalbeen ak léegi jamono bu nekk nit ñi di yokk dina dem ba kenn ku si nekk fa nga toog ngay toog di màggal loolu jamono dina ko indi. Mhm. ndax sëriñ bi moom. adduna la woo boo xoolee màggal màggal Touba 1968 <laughs> la fa demoon ci nit at màggal Touba 2024 xam nga ni écart bi yaatu na. yaatu na waaw sëriñ bi nag moom day visionnaire boo xamante ne lépp lu mu def ren wax na ko ci màggal mhm. lu mu def rek bind leen. te bàyyi ci xel jamono dina indi dina firi li may def nii. Mhm. maanaam dina dem ba nit ñi ñooy yëg ni maanaam besoin la kenn ku si nekk fa nga nekk. nga màggalee fa ndax Serigne Touba ñëpp a ko war a wuy si moom moo ko waxal boppam. waaw ñëpp a ko war a wuy si. te comme ñëpp ñëpp mënuñu dem. waaw bu nu amee fu maanaam ku koy defee dakaar nga defee ko Dakar mën ko màggalee ji loolu tamit. màggal ko Dakar. tamit stratégie la. waaw <laughs> lu baax la. des fois mbir xew Touba am ñu toog Masaalikul Jinaan waaw jàpp ne mooy seen mooy Touba. waaw am na si ñoo xamante ne sax yàlla dogal na ñoom ay benn benn yàgg nañ ko def. Mhm. waaw moom comme nag dafa fës. moom bu defee dara yenn saa yi am na si ñoo xam ni ñu koy interpréter comme ni ñu koy waxee waaye lu baax rek la ci jublu ak yaatal lu baax. man gis naa ñoo xam ne seen jot ak seen wér mayatu leen ñuy dem. Touba lu xew rek dañuy dem Masaalikul Jinaan. te yërmande la sax seen yéene après. te yërmande la. Mhm. waaye teewul foofu ca kër ga taawam maa ngi fa woon. muy borom baax. macha allah moom digaloon na ko moom mu màggalee foofu. Mhm. waaye ñi ci des ñëpp ñu ñoo màggal ak moom fii. macha allah loolu dafa jaroon a leeral. waaw parce que bi ñu ko gisee ci réseau yeeg tele yi. waaw du ñàkk ñuy posé question mais ku mel na yow ñëw leeral. ku si mhm. ne da ci am solo. dëgg la yërmande rek la ci jublu jërëjëf. macha na solo leeral yi eh, tamit am na solo eh, woote bi nga xam ni sëñ Modou Kara mi ngi koy woote. parce mhm. mës naa ko romb mës naa romb Thiès. gisoon boobu année boobu defe naa foofu la waroon a màggale. Eh, mais defe naa ci diggante bi demaat na fi Touba wala. waaw diggante bi Daaru lañu fi dem. Hmm. Euh, demaat fi euh, Louga. Louga moom mooy période Covid bi. Hmm. fa la ñu màggalee ak yooyu. ren njalbeen bi Thiès la ko jàppoon après indi indi ko dakaar indi ko Dakar waaw. pour léegi le fait que bon nekkul benn lieu. Mhm. est-ce que loolu tamit comme tey nga def ko Thiès suba nga def ko Louga ginnaaw suba nga def ko feneen. luy jubluwaay bi moom xam nga li ma la wax rek moom day jàngale waaw koo xamante ne dafa woo àdduna te wax ni àdduna dinañ ko wuy si moom sëriñ bi ma wax loolu mm-hmm. àdduna dinañ ko wuy si si lii muy woote mm-hmm. kon nag ku àdduna war a wuy si njalbeen bi ma la wax ne la boo xoolee màggal dama dama jël ci 1968 rek mm-hmm. boo xoolee sëñ Moussa sëñ Modou Moustapha wootewul woon màggal gi sëñ Fallou moo ko woote bu baax yaa ngi dégg nga xool 1968 ak léegi nga xool foofu foofu laa jël. nga nga xool lii ñëw ci doomu aadama fi biir Touba. waaw mais xam nga loolu yëpp euh, Touba lañ jëm. waaw maanaam bi ko sëñ Fallou wooteeg léegi nii. waaw euh, lépp Touba mais tey sëñ Modou Kara bu fekkee ne def na benn Thiès. waaw def benn Louga. waaw bii passé fan la. Dakar Dakar. Mhm. maanaam nga xam ni taxawut benn place. est-ce que loolu. li ma li ma la bëgg a wax mooy. Mhm. mooy yërmande ji lay yaatal. xam nga màggal daaru gi weesu ñun ñi ngi màggalee kenn ku si nekk fa nga dëkk te yaakaar naa ni sëñ bi région bu si nekk am na fa ay taalibe région bu si nekk màggal daaru xam nga màggal Touba moom daanaka ñëpp ko bàyyi xel màggal am na ci ñoo xamante ne xamuñu ko muy lu symbolique ci yoonu murit moom day koo xamante ne moom dafa gis ni lu baax des koo xatal léegi ginnaaw Bàmba fépp màggal fépp la quoi waaw nañ ko yaa xam nga lu baax mm-hmm. lu baax sëñ bi boo amee lu baax bul ko xatal Hmm. moom foofu rek lay gis ni lii lu baax la bés boobu ñun may nañu ay nit ñu musta woon bàyyi xel màggal daaru ñu bàyyi ci xel ñëw ànd kook ñun hmm. ñu dundal ko ci farata ci suñu nekkul ni nga baal ci question li sëñ Modou Kara bu ñëpp dajee mbooloo yëpp ñoo daje. waaw mais est nekkul ni bëgg fësal mbooloom ak wane mbooloom moo tax muy beru di ko def jublu ci loolu pour wane nii laa toll ko jublu ci loolu sëñ moom mbooloo sax wutu ko ku ko xam moom Cheikh Ahmadou Kara utul mbooloo moom dafa bëgg wane ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kese la ci jublu waaye bu dee wone mbooloo moom loolu taxu koo jóg léegi boo am naa beneen question léegi euh, sëñ Modou Kara dafa am parti bu tudd parti euh, de la vérité waaw nest hmm. léegi taalibe yi waaw dafa am taalibe yoo xamante ni bi dañu nekk taalibe waaye bokkuñu ci parti wala taalibe yëpp bokk ci parti bi. xam nga parti de la vérité day parti boo xamante ne parti classique yi dañoo xaw ute ay mbir. Hmm. sëriñ bi day parti boo xamante ne moom da cee am ndigalu ñaari doomu sëriñ Touba sëriñ Saaliw ak sëriñ Moutala. Hmm. ñu doxloo ko ci ne ko bul ko yàqamti te itam bul ko jiitaloo ku xamul lislaam bu ko bul ko jiitaloo ku xamul lislaam waaw nag dañoo hérité république laïque muy am ay réalité yoo xam te ne dañ ko fi fekk sëriñ bi comme mbooloo gi mu àndal ak ñenn ñi baaxawu ñu xam benn formule politique bi premier woote bi ñu woote woon euh, euh, CICES mm. maanaam ci parti buy doogu judd woote ko mbooloo mu toll noonu ñëw fekk si la loolu yombul ci réew mi. mbooloo mi dañu wuyu si sëñ bi lañ wuyu si dafa dafa am lu dafa am lu ma bëgg leeral foofu. maanaam bi ñu ñëwee wuyu si maanaam comme parti rek nañ ko faral di xamee gars ku si nekk jóg yu wane say couleur ak yëngoog yooyu mais sëñ bi moom ci boppam loolu daf ko bëggeewul woon noonu ne li may gis nii. dafa mel ni moom laay gis ci yeneen parti yi hmm. te man li may wax ak li yeneen parti di def bokkul lii yëfu ku tedd ki la yaa ngi dégg kon foog ngeen jàng kon ñun ñi nga xamante ne ñoo ci bokk te nekk si ci taalibe yi forcé wul kenn sëñ bi forcé kenn dara hmm. moom bu la neexee nga nekk taalibe bokk beneen parti waaye lii yoon nag taalibe moom boo ko hmm. wootee woo moom néew nga taalibe waaw bu ko wootee woo moom néew nga xam nga néew du wax ni fii nga may laal boo may sang. néew ah, moom nag néew du ne fii laal de moom sëriñ bi du jaar pénku ngay jaar soo waaw léegi léegi loolu tamit aussi est-ce indi beneen bi xam nga am ci politique euh, dafa mel ni courant bay pipi bi de waaw am na <laughs> loolu ma jigéen xanaa xool leen ko woon lii de fi la bët ba de. ko xel. waxal Moodu mu ñëw loolu. Régis waaw léegi. Mhm. waaw eh, li nga wax noonu. waaw li nga li nga li nga li noonu. Mhm. xam nga tey. man waaw ah. koy envoyé kii mu def moom Moodu waaw. léegi. xam nga man. waaw xam nga politique fii ni mu demee. waaw. nit ñi mën nañu bañ a attaquer sëriñ bi. mais attaquer ay idéem ci wàllu politique. waaw léegi est-ce que taalibe yi. waaw ñoom dinañ comprendre loolu. waaw mais. ñun am na taalibe benn ñaari. waaw mais saa ay yat si faay gaay de. <laughs> waaw saa yow. waa yow saa yow war nga xam ni ñun parti parti déet mais mais déet déet sëñ bi sax moom sëñ bi kaay ma wax la benn mbir. sëñ bi moom yar na njabootam yar boo xamante ne moom mhm. nee na euh, jiite mbooloo am nu mu ko waxee ne ñu ñu ne la <laughs> dangaa nàngam nit war koo bañ mhm. waaw comme ku woote loo xamante ni ñi comprendre nu ko ci njalbeen bi am na si yoo xamante ne benn instant bu ci nit ñi di am bu ñu ciy avancé lu ci nit ñi am yuñ ci avancé moom euh, jàngal nañu waaw jàngal nañu loo xamante ne ñun euh, taalibe yi kenn ku si nekk ci ñun xam nga ni parti parti bu ñu taxawal 2004 yaakaar naa ni 2004 euh, ak léegi mi ngi bëgg def ay bés 2004 ak léegi mi ngi bëgg def ay bës am na ci loo xamante ne lu ci bëri ci ci njalbeen bi ñenn ñi comprendre ñu ko ci taxawaayu partie bi am ay propos yu ñu ciy avancé am ñenn ci taalibe yi am nu ñu koy jàppee mais jamono ju nekk sëñ bi day dànqaafu waaw loolu ma déconcentré li ma bëgg wax rek mooy loolu du problème. Uh-huh. Mm-hmm. sëñ moom leader la. te yaakaar naa ni préparé na ay njoñam. ba nga xam ne lu ñëw rek. non ba gars yi critiqué est-ce que. taalibe yi ah yow ñaata yoon yow sëñ bi ñaata yoon xanaa yéen nekkoo ci dëkk bi. waaw. ñaata yoon nga fiy dégg gars yi lu ne la ñuy wax sëñ bi da ngay ñëw wax eh, am sax koo xamante ne moom bu ko yëgee sax ay reetaan la koy def. mais est discours bi mi ngi jàll discours politique je ne parle pas ci religieux bi mais discours politique gu sëñ bi. maanaam est-ce que mi ngi jàll parce que PVD bi mu créé ak léegi. jamono yi. Mhm. gis nañ fii yeneen parti yoo xam ne peut-être ñi ngi fi. waaw naam sax peut lii nii mais boo xoolee part mel ne laay jël exemple quoi. dem na fi élection présidentielle am fi candidat élection euh, législative. waaw parti bi dina fexe ba am ñaar wala ñetti député mhm. même bu dee dee demoon boppam sax di di nga di nga ko sentir euh, ci échiquier politique bi mais bu dee ni PVD discours politique bi waaw est-ce nit ñi dégg nañ ko parce que comme bi muy doog jug la ëppoon doole que léegi waaw dégg non déggoo déggoo li ma la wax parti la boo xamante ne moom nga xamante ne moo ne ca bopp ba hmm. moom daa yàqamtuwul dara ndax vision politique u Serigne lay wax moom te vision politique u Serigne Touba du vision politique politicienne bii. mu taxaw mais parti bi ci politiquement mi ngi avancé tamit. waaw dafa am yoo xamante ne bu ñu ci tollee dafa am jamono yoo xamante ne. Hmm. maanaam moom sëñ bi. bu yenn activité yi. Hmm. wala moom oriente du li ma la njëkk wax sànq mooy ñun taal ay ay ay taalibe sëriñ bi la ñooy njëkk. militant wu parti bi. am na si ñeneen néanmoins ñoo xamante ne ñoo ngi ci duñ ay taalibi sëñ bi. Mm-hmm. bàyyi na fi léegi PVT di woote leneen xaw ma. déedéet waaw mais moom dafa toog benn jamono pause parti bi. Mm-hmm. activité yi. am na lu mu doon wootee nan la tuddati. alxadimiya alxadimiya waaw. waaye néanmoins parti bi. moom mm-hmm. mi ngi taxaw. ñii liggéey ci parti bi. ñi ngi ciy liggéey te xam naa ne duñ yàgg dara di ngeen leen dégg. ñu defaat relance su parti bi. leeral nit ñi position yi sëriñ bi am waaye jamono yi ñu toll toll tembe mm-hmm. moom mi ngi ci alxadimiya alxadimiya alxadimiya nag mooy service boo xamante ne si biir Mouridia mm-hmm. service la ci biir Mouridia mm-hmm. moom ci loolu la nekk di ci di ci di ci di ci di ci doxloo taalibe yi jamono yi ñu nekk mais mbirum parti bi daf ko dalandi loolu teg ko am ñoo xamante ne da leen chargé ngir ñoom ñu toog nekk si te ñooñu bis bu ñu demee ci kanam tuuti yàggul ñoom incha allah dinañ leen dégg euh, ci ndigalu sëriñ bi ñu indil waa réew mi li nga xamante ne moom mooy orientation bi sëñ bi bëgg politiquement ci réew mi xam nga loo xamante ne boo boo indee loo xamante ne léegi man dama dégg sëñ bi l'autre jour mu daal dee euh, wax jëmale ko ci euh, ñi nga xamante ni bi ñooy opposition kii bi daal di leen wax na leen bu euh, mu wax ne ñaari gorey mbiraago yi maanaam bi muy wax ne Ousmane Sonko ak président Diomaye waaw mu ne nañ fexe ba bu leen kenn jaxase xam nga dam nga gis nga sëñ bi waaw léegi ñu ñu ndax part parti bi dafa dem fekk ji Pastef wala. déedéet léegi discours boobu. déedéet demeewul noonu xam nga si ba ak xam nga xam nga boo boo boo leen boo leen ma boo leen ma mayee tuuti rek. waa sëñ bi day ku spécial. Hmm. yor communication boo xamante ne bu la yàlla dimbaliwul doo ko comprendre. Hmm. muy koo xamante ne moom. Hmm. dafa am lu muy incarné am lu mu gëm. waaw jiital ndogalu sunu borom. ndogalu suñu borom mooy li yàlla dogal yàlla du ne waaw mu ne déedéet. Hmm. képp koo xamante ne da nga fi ñëw jiite réew mi. Hmm. moom li kay war mooy soutenir la. jàppale la waa ci façon bi muy soutenir hmm. ak kenn ku si ne. moom dafa am vision politique am. muy Hizbul Haq muy vision politique moom kay ci njëkkoon a gis Sonko la bokk sax parce que nee na bi mu ànd ak Macky yaa Macky doon Sonko. <laughs> bi muy wax loolu. waaw waaw sëñ bi nag daanaka mu wax waaw côté boobu noonu. bi muy wax xam nga xam nga yooyu. moom ay mbiru boppam la. waaw mais Abdourahmane yaa ngi wax ci mbirum communication. yaa ngi wax ni communication sëñ bi. ku ku ku ku kiiwu rek doo mën nga bañ a comprendre. ni muy waxee. jamono ji passé dañ fi gisoon benn vidéo am benn langue bu muy wax. waaw xuma langue la xam lu mu doon liir la. am benn waay toog ci wet gi di ko wax. mais loolu vidéo boobu original la. waaw original la li muy làkk nu yéen comprendre ngeen ko. waaw mais euh, loolu am na ku ko leeral am na wolof. waaw am na waa ju ma gis. mu non kàll la man mën naa ko. non non déedéet du kàll gi mooy mooy mooy mooy vidéo bi. bi muy ijji. maanaam déedéet bi muy leeral déedéet déedéet mooy mooy mooy mooy bi waa ji di lax anglais. Ah, waaw ah, kooku anglais la kooku boobu da doon wax. waaw nekk ci bato. sëriñ bi. moom Cheikhul Khadim. Mm-hmm. lam doon waxanteeg jinne yi. Mm-hmm. loolu la doon wax. moom la doon wax yaakaar naa ni am na traduction wolof mhm. xam nga dafa am benn wet boo xamante ne xam nga léegi jamono dafa xaw a jaxasoo mhm. yenn saa yi nga gis sama benn genre boo am lu dara jël mhm. dara dagg ko waaye moom lu mu ciy jublu <laughs> du doon sax lu baax dëgg la waaw te boobu sëriñ bi moom mi ngi leeral sëriñ bu mag bi muy wax ak jinne yi ak jinne yi nga xamante ñoom seen maam junjoon nañ leen ne leen am na koo xamante bu ñëwee na ngeen ko topp moom loolu la ci doon leeral. loolu la ah, doon leeral du ah d'accord gars yi dañ ko dagg quoi. waaw xam nga xam nga naan ndax original la. wala vidéo original vidéo la dañoo dagg fenn rek ci mm-hmm, biir. Mm-hmm. yaa ngi dégg. loolu après xam nga yenn saa yi nii. Euh, waxtaan wu gudd la am na ci wet boo xamante ne moom wax na ko wax na làqu jinne yi wax ko it ci wolof lan lan waxanteeg ñoom jinne yi ak ku tedd ki. Mm-hmm. muy lu leer. yaakaar naa ne après balaa ñoo dem dinañ leen ko partagé ngeen am ko waaw mais dañu dagg benn wet bi nga xamante ne moom ba muy wax kee mi ngi traduire en anglais léegi boo déggul la muy wax nee déggoo la kay di wax ci anglais doo comprendre lan la ñuy wax. <laughs> te ñi ñi ña ko dagg xam nga jamono moo jaxasoo. jubluwaay man nag euh, sama question bi daanaka waa ji jël na ko. Hmm. mais bon leneen li ma ci seetlu rek mooy que ne yaa ngi wax tout ne. Hmm. moom daf ñaari sëriñ yi sëñ Saliou ak sëriñ taxaa dañ ne ko woon. sëriñ Mountakha dañ ko ne woon sa parti bi. bul ko dénk ku nga xamante ne nii bokkoo leen diine léegi yéen. parti waxul ku bokkoo leen diine. ku xamul lislaam ku xamul xam nga xam nga mën nga mën nga bañ a bokk ci ci ci ci lislaam te xam lislaam ah. waaw mun naa ne ah, gis nañ fi abbé boobu. waaw mais léegi te peut-être du ñàkk yaa ngi wax itam du yàgg dara. Mhm. mbirum parti bi dina yëngu. mën nañu tas assemblée nationale su ngeen bëggee dem peut-être pour bokk ci élection yi pour mën a am député te Sénégal yaa ngi koy wax pays laïque la léegi naka ngeen di def ak ñi nga xam ni bokkoo leen diine. waaw mais xam nga ñun parti bi da ngeen bàyyiwul xel rek parti bi amoon nañ ay député. du dëgg. Mhm. waaw amoon nañ ay député suñu yaay mu ngi fa woon moo démissionné. Mhm. yaa ngi dégg. avant loolu tamit Ablaye Matar Diop ak kii yaa ngi dégg sëñ bi amoon na amoon na fa siège joxe ko sëñ bi dafa am leen lu mu bëgg jàngal waa Sénégal ñun dañoo yàgg ci politique politicienne nañu waxante dëgg te politique bi foo ñu xool bu dee mbubb du mbubb buñ jot dafay yàgg tubaab bi moo na ko fi bàyyi moom nag mu am moom nag mu yër ci mbindu sëriñ Touba muy wax ci politikam moom lan mooy politique am. yaa ngi dégg. lan mooy lan mooy politique am. damaa bëgg ñu concentré ci li may wax waaw. Mm-hmm. politique politique de vérité. ak politique politicienne te dul benn. Mm-hmm. xam nga politique boo xamante ne day écarté te ñun nous sommes une nation croyante nañu waxante dëgg te yàlla mm-hmm. tax. mais laïcité bi ñuy dund ñun ci réew mi. war nañ ko revoir xoolaat. war nañ ko xoolaat waaw tey ni ko interprété dañ jàpp ni fii dafa am ay chrétien am ay musulman déedéet chrétien ay croyant la du dëgg ah. war nañ seet loo xamante ne dafay adéquat ak suñuy réalité mais pas loo xam ne day méngóog ñii nga xamante ne ñoom ñoo ñu ko ak ñoo ñu ko déporteel fii muy colon bi waaw mooy cette laïcité nañ ko xoolaat mm-hmm. parce que dañ gëm yàlla man dama gisul benn yoon ñun ñu war a am njiit nga war a tàmbale sa kàddu maanaam ñu ne laa république et les laïcs ba ki nga xamante ne moo la may ngay wax doo ko tudd loolu nan ko xoolaat bu baax sëñ bi moom foofu la ne maanaam réew mi waratuñu taxaw di nangu mais bu buñ ko tuddee la nation croyante des sénégalais bu chrétien jiitee moom wax croyance am du chrétien bi am na lu mu gëm. mais buñ bëggee continuer ci laïcité bii rek di continuer ak moom te tubaab yi jox ñu ko mais loolu est-ce yoon la loolu du yoon. yooyu la war a xoolaat. moom utul pouvoir utul dara dafa bëgg ñu xam ni dañu am lu ñu gëm te nation bu nekk am nga say réalité te ñun yàlla am na koo xamante ne jox nañu ko mu ñuy gide mu ne nan nangu munu mu gide nu mu jàngale ay jàngale yu leer yoo xamante ne buñ ci toppee problème du mun a am waaw xanaa rek amoon nañ te loolu gën a <laughs> mu gënoon yaatu ba ñu gën a maa ngi jégalu nag ci déconcentration yeeg. <laughs> ak nopp beek yooyu man damay préféré bu may wax rek lépp ne teg. lépp waaw waaw pour ma mën a concentré wu ndax bu dara bougé rek damay damay damay déconcentré wu. <laughs> waaw di wax rek ne mhm. nanu gën a bàyyiwaat xel. sëñ bi sëñ bi ku ëmbal waa réew mi mën de la. Mhm. te ñii fi nekk euh, di nguur gu bees gi yaakaar naa ni ay doomam lañ. gunay mbiraago yooyu mu leen di tuddee. Mhm. moom ci wàllu boppam day koo xamante ne état bu ko déglu doo am problème ndax dafa am lu mu def ci réew mi ndax ñun ñii rek seede lañ ci ay ndaw lañ ay boy town dëkk fii am nu nu meloon mu am fu nu fekk am fu mu nu teg ñu am beneen gis-gis di participer ci réew mi di ko def te yàlla rek tax keroog maa ngi suggéré ay nit benn waaye ñuy wax mu ne ko nañ bàyyi ñun di wax nañ ñu defal mais ñun nañu xool lan lañ defal senegal ah ñun dem nañ fi am mënd boo xam ne def nañ fa deux mois dix jours kenn wanewu ko mais bu ci kenn bëggee xalaat lu tax presse wala nangam ñëwul suñ beneen defoo leen ko ngir presse yàllaa tax ngeen koy def da ngeen war a participer ci réew mi loolu mooy dëgg. dem di bale armée réew waaw kon nag ku mel ni kooku bu nekkee ci réew euh, nañ ko bàyyiwaat xel te yenn saay euh, jamono dafa indi yoo xamante ne tey euh, tey suñu téléphone yi jël soppi ay wax hmm. te loolu mun naa jaxase lu bari. mais hmm. sëñ bi ñu ko teeloo bu baax la bëgg yërmande bu ëmbal ñëpp yërmande ëmbal ñëpp yiw hmm. moom bu doon sagoom ñëpp ay bëgg. waaw loolu rek la ci jublu. ci li muy dugg yëpp nee na man ku ma xam-xam ne man moo du Kara xajuma ci pantalon waaye damaa xam ne ku tedd ki yërmande la te alors pour détruire le système il faut ressembler au système. Mm-hmm. waaw leen di nuru nuru te doo ñoom. waaw waaye lenn rek nekk ci moom mooy ku tedd ki. léegi di leen wax ne le 5 bi incha allahu rabbi. Mm. moom mooy bés bi mu jël moomale ko boppam muy bésu anniversaire am muy bés bu symbolique. Mm. waaw muy bés bu ñu war a 5 septembre. yaakaar naa ni événement bi ci xew. Ah. xam na mooy séance bi ca ndar ñaar ñaar ràqee ca ndar. Mm-hmm. di am mbégte lool. plateau bi. Mm-hmm. di ñaan suñu borom def fi barke def fi tawféex. amiin euh, ki nga ah. xamante ne moo tax ñëw fi muy suñu jëwrin Muniru mm-hmm. di ziar tamit sama yenn mbokk taalibe yi xam naa ak ñeen ñi may déglu. ak sama yenn mbokk yi nekk RS 313. Mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. li nga def ni baax na di ñëw ci plateau yi. waaw waaw de leen gën di communiquer. waaw ah, de leen gën a communiquer bu baax waaw dina ci baax. parce que Sénégal dañu faral di wax boo nee du ma wax ñu waxal la. dëgg la dëgg la te bu boobaa dañu lay déformer say wax. di leen communiquer lu bari gërëm bu baax di la sant Nabil ak ki nga àndal moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sëñ Fallou mm. kon di la ñaanal jàmm rek kon euh, nga nuyul ñu sëñ bi bu baax mm-hmm. bu dee nga di ko nag mu wax ñu sa crème beneen yoon waaw <laughs> maanaam euh, éloquence beeg élégance bi te lu tax du màgget bu <laughs> màgget <laughs> loolu ma ma baaxee la ci tuuti eh. moom ni muy dundee dafa spécial mm. du lekk du lekk hygiène màggal gi rek ñu koy bàyyi deneen lekk tuuti moo tax man ba ma ñëwee damaa woor. jaajëf merci macha allah. loolu moom baax na loolu secret merci Omar ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal sunu gan bi Abdourahmane Nabil. Hmm. di chargé de mission ca Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nii nekk également jëwriñ ca diwaanu Bamba fépp nekk foofu foofulee ca Mbour.